mais mbas mi lëmbale na àdduna bi lëmbale na réew mi waaye lëmbaleen gox bi aussi comme yeneen gox yi et bis bu nekk saa ñuy dégloo taal télé bi dégg waa ministère de la santé ñuy joxe bataaxal joxe situation du jour dañuy tudd lu bari suñu commune Dieuppeul Derklé Castor ñu jàpp ni Castor fu mu nekk dafa nekk ci xolu Ndakaaru boo déparé Cap Manuel ba Kaasu Cambérène dem bi ak dikk bi fii bari na looloo tax ñu ñuy tudd moo tax ma gis et di ko sant yàlla di ko gërëme askan wi gis naa boobaak léegi ci gox-goxaat yi association yi ñu ngi booloo takku di def ci sensibilisation démb Castor 3D la woon doomu Castor ASC jëppal la woon ànd soxali cité marine la woon tey loolu yëpp bu amee tey ville de Dakar ni man duma des ginnaaw

bu ñu génnee ci mbedd mi bu ñu mu ñàkk bañ te génn ba ñu génnee ba ñëw ñu moytu du loxoloo ak seen mag ñi seen maam yi mag ñi nga xam ne am nañu yenn at yi wala yenn jàngoro yi ndax mbas mi ni ma ko waxee mi mi ngi lëmbale réew mi li fi li mu dalagum ci askan wi moo xam ci néew wala ci feebar doy na sëkk yàlla na fi yam yàlla na dégg rek doon wàll suñu mbas mi